asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen siyaar bu baax a baax tey nag euh, ngeen àndoon ak kilifa gu mag ñu demoon seeti ko ñun waa Baol Média TV muy Serigne basiiru Ahmadou mu nekk kilifa gu mag fii ci diwaanu senegaal sax la ñuy wax wax dëgg yàlla euh, ñu toog ak moom nii war a tàmbaleek moom waxtaan wu am am solo waa Serigne Bassirou Ahmadou tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Serigne Bassirou Ahmadou waaw maanaam naka nga ñu koy faram fàccale waaw ah, Bassirou Ahmadou moom as su ndaw la rek maamam tudd maam Souley Diagne bokk si seex Sëñ seexloon xomaat boole kook sëñ Masamba ñu dëkk Touba si wetu jumaa ji boo sëñ Mbàkke Madina sama waajur góor tudd sëñ Saam nekkoon waaye bàyyi laat sëñ Abdou Ahad waaw kooku kooku mooy ce que sang bi am na solo macha allah macha allah tey bu ñu bëggoon a xam sa wàllu jaar-jaar maanaam ci sa wàllu métier fi nga jaar tey ba doon lii nga doon tey naka nga ñu koy faram-fàccale waaw sama wàllu métier moom comme comme bépp xale rek su waree jàng métier bi may jàng métier jàng naa métier muy safoon na si camion yi ay 99 ma dem Côte am fa permis transport dawal fa taxi ba 2002 bi robee li commencé ñëw dëkk bi xaw a jaxasoo si laa ñëw Sénégal ma ñëwee Sénégal ma dem si benn labo chinois ne fa di jàng photo ma jàng photo ba ay deux mille 2004 benn journal bu ñuy woowee stade jël ma estage ma nekk fa temps stage bi muy jeex mu maintenir ma ñu def ay quelques années mujj jubatuñu si ay kàddu parce que boobu dama nekkoon chauffeur bu pare nekk journaliste mun ma léegi daf may fay benn salaire bi rek bàyyi chauffeur ma ne ko dee man dama jàng ñaar yëpp damay may fay sama salaire salaire chauffeur après jubawuñ nag mu bàyyi ma dem la matin ma demee la matin si ma sàmm mbay nekk ak moom nekk ak moom ba ma sàmm mbay mu mujj fa jóge buggaan ngay tijji si mu nekk si wereen bi noonu si laa nekk le matin après ma nekk magazine Debo mooy magasin di wane modèle yeeg mannequin yeeg yooyu ba fa nekk dem ay at benn jour waa groupe lañ ma woo ma si benn guddi rek ni ma est que bëgg nga liggéey fii ma leen waaw fii moom kenn ba ñu fi liggéey ma ñaar lay fay fële nangam nangam mën nañ la fay nangam salaire ñu d'accord si ma nekk fa nekk naa fa nekk naa fa ay at non yàgguma fa loolu sax si laa bàyyi foofu ma damay bàyyi après sax dem naa fi des médias mais foofu deux mois rek laa fa def la tribune après si laa bàyyee tamit ma bàyyee nag ñoom ñëpp ñu naan du am fu gën fi nga nekkoon mënu am lu ko gën ma leen non li may am mooy gën fii mais ñoom mënu ñoon a xam lan laay wax parce que xam nga dafa nekk mbir yoo xam ni dafa nëbbutu kenn mënu koo xam nit ko koy wax rek nit ko yëg rek moo ko mën a wax voilà euh, sëriñ Bassirou Amar loolu am solo trop maanaam sa jaar-jaar yëngu nga ci wàllum chauffeur jóge fa yëngu ci wàllum journaliste ba ci photographe mu nekk métier yoo xamante ni fi mu toll nii métier noble lañ ko mën a tuddee lan moo waral nga xëy xëy rek bàyyi yooyu yëpp yëpp lépp bàyyi lépp bàyyi sa liggéey booboog lépp lépp rek. waaw li ko waral mooy boobu maa ngi am soxna ma am doom bu góor bisu altine ma ne ko dama koy tuddee. yonent bi salaahu salaam wax ko sama soxna ni ko nañ ko tudd yonent salaam wante bu kenn misik ñu d'accord si bu ngeen lu jub fekk man dem naa luye sama mooy sana musique yi rek dem naa luye ko jox ko mu jënd CD kaamil mu xëy jàngul alxuraan ni ko léegi tegal mu benn CD bi rek kaamil ku ñëw nee ko musique amu bi ñu tuddee ba pare ma génn rek waa kër gi ñëw ni ko sunuñ ba pare léegi da ngay teg musique mu leen non ki joxuma ki joxuma musique alxuraan moo fi nekk ñu ne ko noo ko da fiy jóge <laughs> fii dañ fi teg musique ma ne ko non musique du fi tegu léegi nag ci commencement bi noonu dem naa police mu demee police quatrième bi nekk Médina dem ci commissaire bi wax ko expliqué ko ne ko dama am ngénte sax dañuy kii musique bi sa man bëgguma musique mun ma noo boobu loi moom amul Sénégal quoi loi loi buy tere musique ma ne ko waaw mais man kon am naa sama loi <laughs> sama loi mooy su ma demee ma ñëw ba kër gi leen sama loi léegi mooy su musique bi amee dinaa ko fase ñu ne day wax day wax rek ci nga xam ni day sol ay kabam di def lu neex nan day tere ma leen waa baax léegi bu ma déggee bi rek si laa woo ko léegi may naa sa baat ñu naan moo day caaxaan day wax day wax rek mais loolu lépp rek man booba mbir yaa ngi may dugg si ndànk-ndànk sa fekk na nag fekk na nag damaa xir si yonent bi salaahu salaam mu juddoo ba léegi dama koo bëgg lool lool lool lool lool lool si noonu bi ngeen télé passé fekk maa ngi nekk si ay jubatu yu bari comme jeunes yëpp rek comme jeune bu nekk Dakar bu am 40 ans Dakar laa nekkoon voilà léegi bis bi del si dem ay fan ma commencé gis ne maa ngi maa ngi changé ma commencé dag li ma naan teg si loxo yi mooy mooy li ñuy jaay jeu di def ay Chelsea ak ay Arsenal daan ko takk genre kaws yooyu. mooy xale yi voilà voilà mooy xale yi takk seen loxo yi. may dagg di sànni dagg di sànni dagg di sànni jël sama sorte sama pantalon yi di maye. gars yi naa waa sëñ bi yow loolu xanaa da <laughs> leen non nekkul dof de wante dafa am lu may di dugg si man ñun ah yow koy saa yi yaa ngi waaj a dof si la ma duggee nag mujj su ma demee si jàkka ji su ma tiimee alxuraan rek commencé jooy wallaahi mu jaaxal ma loolu nag jaaxal samay mbokk. mujj si jàkka ji laay nekk maa koy maa koy bale di ko fubeere mujj ma bàyyi liggéey yëpp RFM ak groupe Futurs Médias fépp nekk si jàkka ji maay bale ngoon gi su ma xëyee fubeere loolu laa doon liggéey soo mbokk yi ni kii moom sànk na c'est fini doon liggéey ba si yaa ngay bale ay jàkka sax xamuñu ni jàkka mooy néegu yàlla am na suñu borom bu la mayee bu la naree may dara foo mu jaaroo la si loolu néegam d'abord ma koy bale ne sonn loolu nag mujj liggéeyatuma 4 mois def naa ko Dakar yoo xam ne mujj liggéeyatuma naa ko liggéeyatuma léegi nag yoratuma dara wallaay ma ne si coono yi ne si coono yi nga da ngay borom kër gi di ma topp di ma topp ay 4 mois bu ñuy wax Diop mooy photographe la tribune ñu mag ñëpp xam nañ ko Diop moo yëkkati fukki junni fay maire bi <laughs> dara parce que maa ngi taxawaalu taxawaalu gi mooy su ma xëyee naa bale bu ngoonee ma fu weere jumaa ji mooy mooy jàkk ji nga xam mi ngi nekk Medina rue cinq Cheikh Seck moo ko tabax seex Seck men fa lay jullee sax daana ma fekk wante xamul loolu lépp maa koy def léegi nag benn jour ma ñëw rek am lu ma jëloo kaamil fekk man jàng ma woon ma jëloo kaamil ma jël kaamil rek dem si jàkka ji fekk nag bëggoon naa kaamil quoi bëggoon naa alxuraan ma jël ko dem si jàkka ji tiim ko tim ko di jàng saar yu gàtt gàtt yi ma man rek di ko jàng ay falaxeeg yooyu si noonu noonu laa commencé waat jooy bi dikkal ma jooy bi dikkal ma jëlaat kan bi dem tëj yóbbu kër gi tëj ko ba beneen jour ma jëlaat ko rek mel ni daal dafa am lu ma ko rek lu ma ko leer ma mën koo jàng wallaahi mu leer naañu billaahi ma koy jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng weer weer laa ko jàng nag wàcce ko wallaahi billaahi ma may wax ni barke alxuraan jàng ko weer ba bi jeex maa ko wàcce sama bopp kenn néew ma lii wala lii wala lii billaahi su ma demee ba nga xam ne dem naa foo xam ni xam nga xam saari dafa am saar yoo xam yombul ay alif laam miim su ma demee ba si genre yooyu saaru mel noonu damay jëlaat dencaat parce que parce que li ma suñu borom booleel bëggul may laaj kenn xam nga soo laaj mën laa lii lii la wala lii lii la damay tëjaat dem jamono yooyu am na rajo rajo bu nekk Dakar wala fajir boo xam alxuraan lay teg wala bu nekk si euh, RDV tamit am na tamit bu fa nekkoon voilà léegi moom laa daan déglu benn jour maa teg kaamil bi de ñëw naa ba foofaan xamul lu may wax ma dégg mu ne alif miim rek ma jëlaat kaamil dugaat si jàkk ji xam ni saar boobu la billaay noonu laa ko toppee di ko topp ba kaamil bi jeex tàkk mun naa ni li may wax day bañ ma laaj kenn parce que bëggul ëllëg bu dara ñëwee ñu ni kii dafa jaar fee kee moo ko tarbi wala kee moo ko tarbi wala mosuma laaj kenn kenn kenn kenn xanaa li ma laaj mooy ba mbir mi ne léegi Touba xam nga rek mbir mi du loo xam day jàkkaarloo yow di wax ak yow. mooy ni ñu ko mën a waxee euh, sam xel lay dugg di la wax mooy yow nga toog ba si yàgg nga war a dem fenn. man dangay romb ziar war a dem fenn sam xel jékki-jékki ah te waroon na ma dem fenn fàtte naa ko voilà mu dikka la noonu la mel raw xaan wala yooyu rek noonu la mel loolu nag ni ma Touba nag la mbir mi Touba sa doo ko génn fekk pare woo Touba sa booba xaw ma ñaata at yoo xam ne Touba xamatuma fi dara ndax yooyu ma ni Touba moom du ma fa jaar daaw ma sax màggal si billaahi daa ma màggal si <laughs> at yu bari <laughs> ma ni yooyu mënu faa dem xam boo fa lool da ngay dem ma ñëw Tuubaa benn bis maa ngi koy fàttali muy nekk bisu ajuma si kasu rajab waaw weeru rajab la woon boobu maa ngi ñëw nii xam nga mbir tamit dalay xiir si lu baax di la def loo ay woori ngàtt nga bis boobu maa ngi koy fàttaliku maa ngi woor maa ngi ñëw ajuma miinu ma Tuubaa nag ma ñëw nekk sama kër boo xam ni kooku suñu ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay nga jógee Dakar ñëw Touba. ñëw Touba si bisu àjjuma bi di laajte fan la jumaa jege bu nekkul jumaay Touba parce que maa ngi nekkoon yoon Daaru Rahmaan ñu ma ñu ne ma côté bi may dox di dox di dox ba dem si jumaa julleef jumaa ji mooy jumaa yi Sëñ Fallu jumaa da Sëñ Fallu jumaa da mi ngay dégg ma fay waaw ma fay baagante di jullee ma fay baagante di jullee di dem di ñëw ne si liggéey bi nag di jàng alxuraan di woor di jàng alxuraan di woor di jàng alxuraan di woor ba si yàgg tamit léeg-léeg ay mbir di ma dikkal la may toog ay ay tur yàlla di ñëw xaw ma sax wala tur yàlla parce que ku jàngut rek su ma dara dikkalee may wër si mara yooyu ay sëñ Alaaji Mbàkke wala sëñ sëñ Jiili moom sëñ Fàllu Jumaada noonu la daan def léegi su ma siy dem di si dem di si dem di leen laaj naan la wande man de dafa am loo xam dafa may dikkal di ma wax ñu ni lu mu lay wax su la waxatee dara ñëwal wax ñu ko nekkate boobu day ñëw ay di ma jox ay tur yàlla ay yaa fataahu yaa rasaahu ak yeneen tur su ma ko defee jàpp ko dem si maaraay laaj leen la ma wax tey ñun ma lii ay turu yàlla la ma leen man dama mos a xaw ma lii parce que mosumaa jàng <laughs> ñun ma lii nag soo ko toppee fa mu lay jëmee moom di nga dem ba di nga toog suñu borom dina la noppal wante ay bala nga say jot <laughs> wallaay nan la ma ko wax suñu alaaju Mbàkke ñoom ñu mën nañ man li lu wér la ko mën nañu maa seel suñu alaaju Mbàkke doomi sëñ Bay Mbàkke jaaxal ñoom ñëpp dama daan dem si moom parce que ku dafa maa xamoon avant loolu di ñëw moo tax ma dem ma pour yàlla yow xamoo si lii dara ma ne ko noonoo non xaw ma si wante daam ma koy wax lu ma wax rek su ma demee waxaat ko ko léegi si noonu nag laa ko toppee di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba nga xam ne xaw na sore tuuti nag léegi bi mu soree tuuti nag léegi am lu ma dikkalaat nag ni ma fii si Touba nag li bëgg nag il faut ngay roy sëñ Touba si lay jaar pour mu ñëw xaw moon xasaay lu mu doon xaw daaw ma ko jàng daaw ma ko sax jege wallaay waaw loolu rek lenn rek waaw il faut nga jaar si Ahmadou voilà roy yaa xool li may solo nii fa la commencé léegi mu wut xasaay bi ma njëkk jël mooy wakkaanaa xan wakkaanaa xan laa njëkk a jàng waaw laa njëkk a jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng parce que boobu mën na mën na maa liifantu lii rek yooyu ma koy jàng di ko jàng di ko jàng ba si ak mu jox ma si ay secret nag ma koy def fekk nag boobu nag ñetti at fekk boobu nag yorutuma dara ab dërëm laa la wax mel ni xaalis bu jaaree nii nee lay jaar xaalis du ma jige fenn wallaahi <laughs> xaalis bi sori ma yee ma gëm ko rek mujj yére yi commencé tilim nag nit ñu commencé daw nag mujj na ma su ma demee jumaa ji di julli tataa mu du ma ko am boo nii nii du taxaw naan kii wérut billaay <laughs> ma sonn lool damay jóge yoon dara maan dox dem julli ba pare dem suñu kër añ doxaat ñibbisiwaat oto du ma ko am oto boo arrêté mu làng sareet ñëpp di la daw ndax climatérim goo xam ne ñaangi ñaangi goo xam ku ma gis moom duni kii moom nit la moom nit moom doo ma ko teg <laughs> nit moom doo ko yaakaar si moom si noonu nag laay demee di si demee di si demee di si demee ba wakkaanaa xan boobu ma koy jàng mooy jox ay dog ma ko siy def di ko si def di ko si def ba si yàgg mel ni mbir mi dafa ba ku ma gisati ni ma yow dama laa jàpp ngi jëmi Sëñ Tuubaa yëkkati xaalisam jox ma billaay may wax ak yow nii ba tey ji même su ma liggéeyul damay am xaalis billaay bi su ma liggéeyul sax damay am xaalis nii day ñëw di ma jox xaalis ku ma gis ne ma addi Sëñ Tuubaa ma xam ni gisoo suñ borom ni mu lay soppee ak ni mu lay nga xam ni Ahmadu bokk si bokk ak ni lay soppee ba ba tourné nit ñi ñu lay ñëw a jox addi Sëñ Tuubaa sa yow bu njëkk kenn xamuloo woon kenn mësumaa jox addi Sëñ Tuubaa <laughs> koo arrêté koo jege mu daw la dem ba nit ñi wut si waat la sa boobu tamit ba lekk maa ngi sol yére yi ni mu tilimee léegi si noonu si la liggéey bi continuer saa yu ma xëyee maa nga jumaa ja 9h 9 laay dem sukk si béréb suñu tubaab di jàng samay xasaay di fa ne di fa nekk di fa nekk di fa nekk ba heure yi bëgg a añ bëgg a jot ma dem bu nekkut bis yoo xam ne damay def mooy li may royee sëñ tubaa xam sëñ tubaa boo koy roy doo ko roy si ay iskay sëriñ tubaa jërëjëf sëñ tubaa rek <laughs> dafa am looy royee sëñ tubaa waaw Sëñ Tuubaa da koy roy si daraan woor alxames ak altine naafila yu bari boo dégg ñu naan Sëñ Tuubaa jul na ñaar rakk ay sandar julli na fee julli na fee loolu lépp rek da doon def saa bu jàppee julli ñaari rakk ko aussi jéem roy roy ko si sikkim bi roy ko si karaw gi xam nga li neexut sol chaque jour pergal neexut sol de <laughs> doo sol mbasin waaw ñu tere ma luy mbasin il faut nga roy Sëñ Tuubaa pour li nga bëgg moom bu ñëw si yow il faut nga roy Sëñ Tuubaa ma nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nag noonu nag laa si nekkee ba mujj nag suñ borom boole ma ak sëñ Abdou Karim ma dem fa nuyu ji ko voilà waaw borom ma dem fa nuyu benn jour rek borom am lu ma kii rek ma dem fa rek nuyu ji ko ma ñëw rek ne ko sëñ Abdou Bousso moo ñu ba sëñ Abdou Bousso doomi sëñ moo yore bureau bu ma ko waxee sëñ Karim tamit kii ma lool nuyu ma waxtaan ak moom foo jógee Dakar ma ne ko de maa ngi gi mu xool ni mu mel yëkkati xaalisam jox ma ni ma bu ko soobee passé da nga fiy ñëwaat si noonu noonu sax ci la photo yi commencé génn. mooy loolu ñu dégg ci lu bëri. Mhm. maanaam photo yooyu. ñu dégg ci ah gis ngeen di ko publier si internet bi Facebook bi WhatsApp bi mu indi coow coow loo xamante ni bëri na. Mhm. ñëpp naan tey euh, jëmm ji dafa demoon siyaare ji. dof dof bi dof bi waaw dof bi dof waaw nga baal na ci kàddu ah, bi. loolu sax am solo am na dof koy am mais dof bi tey daa demoon si yaari bi sëñ Abdou Karim loolu loolu man nii sax jotoon naa maa jox ci photo bi tam hmm. loolu la sama xel jàppoon nag. la bëgg loolu tamit nga leeralal ñu ko a baax. waaw non li may leeral moom mooy rek suñu borom nga fu bëgg dara moom fa mu teg la ay nattu sa nattu moom sa lu tilim da see bokk. xam nga su ma soloon lii moom du ma am nattu parce foo dem ñu jox la cër. wante nga solu tilim nit ñi di la daw kii dof na xam nga ku ne yow dof nga sa yow leer na dofuloo sa am na ko gën a metti amul de sa yow leer na ne yow da ngaa wér pëlëg pëlëg pëlëg foo jaar ñu daw la jigéen ñi di la daw xale yi dof baa ngi ñëw daw leen daw leen daw koo jub mu daw la ndax ni nga mel ba si ay bennet bennet yoo xam ni suñ borom defal na leen mu mel ni sëñ Abdou ak ñeneen sax di nga dajee sax ñeneen ñu la respecté jox la cër. mais ñooñu xam suñu borom moo leen baaxal xam nga baax du si rek ku bari xaalis wala naa baax mooy gis koo xam ne ñëpp a ngi koy daw yow nga jàpp ko loolu mooy baax woyof woyof da nga woyof fa sa bopp comme si Abdou Karim mel gis xam ne ñëpp ne leen kii wér na wala wérul nga jàpp ko loolu baax wante baax du bari alal wala alal moom suñu ko ko may kàccoor ku ne la li muy may ay nitam mooy ragal yàlla ku baax woyof di maye su loolu daal la ma sëñ bi jàppee jàpp ma si jàpp ma si ba léegi may wax ak yow nii sax su ma gëjee gis sax ma dama daan liggéey bi day am jamono yoo xam damay tëju léeg dinaa def si mois du ma génn sax buntu kër bi su ma yàgg ba yàgg mu woo ma lan la ma ni ko déedéet damaa ne si liggéey bi ma nekkoon de sax ma liggéey dafa nekk liggéey bu metti boo xam ne yow du rek loo xam ne dañ lay gis ni si mbedd mi rek wante yow ni ngay dundee day metti dund goo xam ne yow fi ngay tëdd rek lëndëm rek ngay doo taal làmp ay lekk yi am nooy lekke daa am nooy de xam nga du lépp lañ mën a wax si télé wala wala rajo wala am na yoo xam ne moom danga nga koy suñu borom mbiru suñu borom la daal doo ko wax si rajo yooyu mais daal du liggéey boo xam liggéey bu yomb la dof gee si gën a ndaw iñ naan dof na dof na moo si gën a ndaw am na lu gën a métti loolu lu gën a métti loo xam kenn du ko mën a wante liggéey bi daal suñu borom koy joxe kenn nag du ko jox kenn moom si cooroon la koy joxe voilà suñu boroom mooy jël lu ko neex def ko si nit soppi la nga newoon si ay mbiri journaliste xam nga journaliste dañ lay yilif dañ la naan xëyal dem fee boo xëyaatee demal fee sept ngay ñëw bu weer dee nangam mais lii kenn du la yilif lu dàq <laughs> lii moo dàq mais nag si borom la ko jox nag foo mu teg la su lu méttee métt comme ni ko si ki may roy fan la jaar sëñ Tuubaa jeexul sax. waaw euh, eh, da mbubb mi nag li ñuy waaj a jeex si la ma suñu borom xam xamal am ko ma booleel muy muy liggéey bu may liggéey nii mooy mooy aaya bi aaya bii xam nga lii aaya sóoratu jinne la. xul ya ilaya annahu istama nafar minal jinne xam nga fi la yem. fa xaalu inna sami'na qur'anan lii maa ko si yokk. secret bu suñu borom xamal muy jinne boo waxee jinne da nga naan Moussa xam loolu ñu bari ngi dégg Moussa jinne Moussa sax xamuñu ko xam ñu bari ngi koy dégg waaw suñu borom nag boole ma ak moom mooy su ma waxee xul ya ilaya annahu istama nafar minal jinne ma ne Moussa ma yokk si Moussa ji léegi Moussa ji nag léegi boo amee boo amee boo amee looy ñaanlu moom laay bind saw tur ak sa turu baay ak sa turu yaay si musa mii moom laa koy bind mooy secret bi nga xam suñu borom rek moo ko sañee jox nit waaye parce que nit moom sañ ci yokk alxuraan darawul sañoo ko si yokk mais boo dégg ñu wax wax sañ-sañ mooy lii sañ-sañ da ngay dégg ku ni sañ na maa takk fanweeri jabar sañ na maa toog du ma julli bu ko diingat bul sax diingat non non <laughs> suñu borom li wax si téere ak li wax si suuf mu ëpp li nga xam da koy wax ay nitam du ko wax si kaw xam mën na ni julli leen xam nga danaan julli leen suñu borom moom danaan julli leen képp ku képp kuy jullit julli la la wax bu ko neexee dee ko bul julli yow na nga nekk fële na eh kii julliwut kii di sawara la jëm yow nga dugg sawara <laughs> sa yaa ngi julli de moom moom julliwul fekk suñu borom ma ne yow bul julli am suñu borom du ko déey ba pare yow ñëw déela ni ko gëm ko déedéet moom da koy déey rek yow na mu bàyyi la voilà si la ma suñu borom joxee Moussa mi nga xam ne man am naa sañ-sañ man Basiru Ahmadu su ma bindee xul ya ilay anoo istama nafar mu jinne ma yokk si Moussa mii musa mii nag si laay bind sa tur bind sa bu baay bind sa turu yaay léegi nag bu dee feebar bi ngay feebar bi nga xam ne moom moom laay ñaan sama leget yële leget yële ndox ma nag salaa ajoo man la may ñaan suñu borom laa koy def boole ko ndox mi ak reenu daqaar parce que Moussa mi jinne la boo weesoo sama mbir xonk maanaam même yow mii sax bu suñu borom namoon si yow dara bu la xamalee sa jinne ji xam ngeen ne ànd nga ak jinne bu la xamalee jinne ji yow mi da dem ba nekk dara wallaahi lu la laay borom xam yëpp jinne ji nga àndal rab koo gis ànd boo xamoon li mu bëgg ba koy defal yow mën ngaa xëy xëy soppeeku nekk borom xam-xam billaahi lu leer laa lay wax ni léegi mën nga maa man li sama kii bëgg ndax ma déedéet suñu moo la ko mën a xamal ah. bu dee jinne ju baax xam nga jinne yi bari na am na jinne yoo xam ni nit ñaa ngi ko yor yow mii boo ko bëggoon léegi am na borom xam boo fa demee yenn xam-xam yu ñu jox la ko jox la tur ji na nga koy wér di wér di wér léegi dina ñëw si yow wala léegi mu ñëw ni la nag booy julli de bu nit ñuy wutee penk wuteel càmmoñ del kii xale bu jigéen nangam nangam defal leen si xale bu jigéen di la jox lu bon da ngay dem ba nit ñi la rang nga bari xam da wax léegi léegi mu nungu loolu mooy xam-xamu ñuul mais bokk te ñun xam-xam lii xam-xam bi yàlla la moo la koy jox du loo xam da ngay wax léegi da ngay jox nit ne ko defal juróom fan mu def juróom-ñaari fat man toog muy ñëw ndànk-ndànk di ñëw ndànk-ndànk ba mu ba loolu mooy alxuraan boo ko teg loo xam ni jinnee ko yore bu ko neexee jël bu ko neexee ni la booy julli bu nit ñi féetee penk féeteel càmmoñ koo xam nga ni jinne ji yow moom moo lay digal moom ngay dem bay jaamu lii nag suñu borom day teg si yoonu jub day teg si yoonu jub bokk ñuy wax ay dóorkat ndax xamoo woon dara xamu woon dara xam ku xamul dara xëy mu xamal la loolu moom moo la xamal mooy la ñaaneel ma nii saba ndox mi la ma siy wax ndox mi la ma siy wax la ma siy wax moom mooy yow feebar bi nga indi wante lii moom lii moom mooy mooy ki ma boole xam nga lii moom alxuraan la xam nga li sëriñ yaa ngi siy faj sax lii rek sëriñ yaa ngi faj alxuraan rek dinañ ñu leen di fàttali ni yéen ngi ànd ak seen rajo télévision Bawol Média tey ñu seeti woon euh, Basirou Ahmadou waaw mu nekk kilifa macha allah numéro téléphone yi mi ngi nii sëriñ 77 125 40 81 77 125 40 81 wala nga def 76 699 45 41 76 699 45 41 waaw Serigne Basirou bisimilah eggale waaw mane ne xam nga lii moom yàlla moo koy joxe bu la ko yàlla joxul doo ko am du lu ñuy jàng fenn déggu ma la man mosuma dugg benn daara wala ma laaj kenn dara sa lii man sa lii man daf ma dikkal ma bind ko jox ko sëriñu daara ñu ma koy bindal billaahi <laughs> est-ce que sëriñu daara ma koy bindal nii sa moom ñu koy bind jum na si jumte goo xam ne parce lii mosu koo bind parce lii moom lu kenn am kenn amu ko wallaahi mën ngaa wër sëriñ bu la neex nag benn sëriñ bu la man Moussa laa àndal amul fii mosuma koo dégg déglu naa rajo bu ne mi amul léegi euh, kon da ngay yëngu ci wàllu ñaan waaw wàllu ñaan la jafe-jafe bu mu mën a doon noo xam suñu borom bu la la moom da ngay faj ay siti siti day si ndiglu day metti ak nangam déedéet moom suñu borom xamul loolu suñu borom daf lay may ni la rek képp ku am jafe-jafe ba mu des jafe-jafe bëgg liggéey nit wala nga ni takkal ma sama baatu jëkkër nga xam ne ko lu ma ko wax mu def loolu daal loolu daal liggéey moom lay bañ mu ni def lu bon lépp lu bon moom du ma ko def du ma ko ñaan mais lépp lu baax jubale nit faru rab nga xam moo gën a bari sa man xam nga rab laa àndal jinne mooy rab rek ki mooy seen kilifa Moussa mooy seen kilifa xam ne Sëñ Tuubaa nekk kilifa murid yi noonu la Moussa nekk kilifa junne yi sa borom xam-xam yaa ngi may déglu nag ba dañu am xam-xam bokk waxuma nag xam-xam yëri téere de mun boo yëg képp ku nekkub sëriñ bu mag war ngaa xam ni Moussa mooy jinne mooy kilifa yi parce que wàllu yu la ñëpp xam nañ ko bu dee ko am xam-xam waxuma na ko yëri téere bu la suñ borom bu suñ borom booleeg moom nag moom duni la ku ñëw da ko naan feebar naa ngay faj wala naa moom defaa rek ku ñëw ñaana ko feebar am jërëjëf jërëjëf Basirou Ahmadou waaw kon ñu ñu leen di fàttali yéen a nga ànd ak seen rajo télévision Bawal Média euh, si kàddu gi Bour Guéweul Mbaye ki nekk ci caméra bi Serigne mu Diop Thiat waaw xam naa deuxième partie bi incha allah dañ koy tàmbali léegi léegi ñu leen di fàttali numéro téléphone yi 77 125 40 81 wala nga def 76 699 45 41 76 699 45 41. waaw kon da ngay def ñaan sëriñ bi ñu yëkkati jataay bi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatu xara wa inni ahmadu lil mustafa nawaytu ma yujaddidu